mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi amaat mbégte ànd ak yéen ci seen entretien exclusif tey nag ñu ñëw ba fi nga xam ne moom mooy euh, pale euh, présidence de la république euh, seet si ki nga xam ne donc moom mooy sunu invité kenn dootu ko présenté ti muy ki nga xam ne moom mooy Omar Ndiaye Angloma nekk chargé de mission ci cabinet président de la république moo nekkaat sunu gan ñu ñëw ba fii ci Dakar. Euh, seet si ko euh, ngir waxtaan ak moom ci yenn ci ay ponk yoo xam ne ni euh, soxal na lu jëm ci national actualité national ba ci ak sunu dëkk bi nga xam ne moom mooy Mbàkke Omar Ndiaye maa ngi lay nuyuwaat. Sidi maa ngi lay fay di am mbégte mu mag ak contentement bu mag ci nga xamante ni mooy site bu mag bi déplacé wu ñëw seet ma pour ñu waxtaan ci comme ni nga ko waxee ci tolluwaayu réew mi. waxtaan tam ci Mbàkke waxtaan tam ci li nga xamante ni euh, soxal na Sénégal ak département bi nga xam ne fa lañ dëkk muy Mbàkke euh, di gën a continuer tam di wax ni rek maa ngi lay sant di la gërëm yow tam donc ci sa xarañte parce que euh, émission bi am na solo ndax ni nga def ba am ko am na foo jaar ci barab yu bari ba nga xamante ni mën a egsi ci man pour ñu mën maa mën maa jël kon euh, li ngay def tam am nga ci volonté am nga ci fayda joo xamante ak rigueur boo xam ni vraiment maa ngi ñaan site bi yàlla gën koo yóbbu mu nekk ci site yi nga xamante ni moo gën a kawe ci Sénégal. jërëjëf euh, tey nag Omar Ndiaye euh, sama waxtaan jëm ci li nga xam ne moom mooy après élection yi defoon nañ jàngat ci li nga xam ne moom moo indi defetu coalition Benno Bokk Yaakaar ci Mbàkke mais dafa mel Euh, quelques mois après wala boog un mois deux mois ñu ngi dëgmal benn élection muy conseil au conseil des collectivités territoriales Mbacké ëllëgu euh, Benno Bokk Yaakaar ci département bu Mbacké am nga ci jàngat boo xam ne maanaam dana leen mayaat ndam ci loolu nga xam ne moom la ñu dëgmal waaw comme ni ma ko waxee woon ci euh, émission yi passé rek laa ciy waxaat sii di c'est-à-dire gën a rek xam nga maanaam man li may wax toujours rek mooy président de la république mérité wul liñ gars yi def Euh, parce que nit bu fekkente ni dafa jël lépp lim am jox la da ngay jël lépp li nga am nga delloo ko parce que département bu mel ni Mbacké euh, président lam fa def euh, ak lam fa nommé ak lim def Touba méritoowul di dem ay élection ak lam fay dugal ci xaalis di ko perte donc kon buñ jamaatee ci ay élection yoo xamante ni enjeu bi bëriwul parce que bon boo xoolee au conseil bi boo demee xam nga opposition bi moom dañoo waaf <laughs> parce que euh, fi mu ne commencé nañu daw parce que euh, xam nañu ni euh, gaynde gi bu jógalee boppam wax naa leen élection présidentielle ak élection mairie ak élection député bokkul Macky Sall mu bëgg bokkut ak candidat boo xamante nii peut-être que dëkk ba nga ko investir bëgg gëmuñ ko wa illaa mënu faa gañe donc du Macky Sall lañ doon gañ ay nit lañ gañ gañuñ président Macky Sall donc au conseil itam nekk benn poste benn Euh, kii boo xamante ni nii bonk àdduna bépp dafa am di corps boo xam ni ñëpp ko reconnaître ñëpp a ko nangu euh, kon bu ñu investir lañ fa investir Mbàkke te ma dégg ko donc investiture la boo xamante ni nii euh, investiture bu tegu ci yoon la parce que ndaw soosu noonu waxuma sax moom ci jëmmi boppam mais ay mbokkam rek maanaam maanaam ab dëkk lañ investir daal parce que tey boo xoolee tey Ndoyeen mooy cosaanal Mbàkke parce que dëkk la boo xamante ni dëkk bii ñi njëkk a sanc Mbàkke euh, dëkk Ndoyen ci la bokk mag ñi fa jëbal euh, defe naa mooy euh, kii Mariama Sall sama jigéen donc so yàgg son tam ci parti bi donc loolu moom moom rafetlu naa ko trop moom rafetlu naa ko te itam bu fekkente ni nii dañuy ñaan parce que yàlla tam mooy joxe ndam Euh, yàlla na ko yàlla may ndam mu jàll ci mu jàll mu jàll ci ci jàmm bu dee ci Touba tam euh, ki ñu investir muy Alla Sylla waxuma sax euh, ci côté APR mais physiquement alalam lépp def na ko ci te mës am benn doom ba tànk am na sax ñu ñu fa doon investir ñoo xamante nii àllaa leen ëpp njëriñ ndax lam yor muy beey boppam ak alali boppam doon na ko investir ci Mbàkke ak département bi ak ak ci donc donc kooku euh, nit la koo xamante ni nii donc euh, tam baax na mbaytin fat fale euh, Taïf mbaytin boo xoolee il en politique nit la koo xamante ni c'est le maire de Taïf donc investiture boobu tam investiture la boo xamante ni maanaam bonul donc yàlla na leen yàlla may ndam donc euh, yàlla na leen yàlla may ndam ci université ci néew na ci national bi tam bi euh, euh, ku mel ni Amadou Fall nay dama ngi ci woon ak yeneen ñoo xamante nii donc xëy na ñu ngi woon national mais ci ki njëkk a wax mooy ku ni Amadou Fall nay da donc nekk nit koo xamante ni nii itam am na njëriñ ci département bi am na yoon njëriñ ci yoonu murit donc kon ñu ngi ñaan tam président nu mu tuddati mu dugalaat ko nu mu tuddati ci liste bi au niveau national kon donc euh, ci CESUA yi ñu def euh, ci euh, ñi nga xam ne ñoom lañu investir ci au conseil de collectivité territoriale am nga ci yaakaar baax choix bu baax la mais da nga ne opposition dañoo daw est-ce que dañoo daw ñoom dañoo boycotté nee na élection yoo xam ne ni maanaam institution la bu amul benn rendement amul benn njëriñ lan lañ koy doyee ñoom. xam nga ñun da ba jàpp ni sax ñun jëruñu ay opposition ay rebelle la ñam xam nga maanaam bu fekkee da ngaa bëgg a jot am réew dafa am maanaam loo xam ni looy looy looy nangu parce que lu toll nii am réew ñu jël ay nit institution bu toll noonu euh, mu nekk kuréel goo xam ne àdduna bépp ko ay kilifa nekk fa nga ni loolu du lu gën ci réew mi ba tax na doo ko dem élection ñooñu ku leen jox réew mi est-ce que dañ ko mën a yóbbu fenn donc li am solo rek mooy euh, nee naa la toujours opposition amu fi ay nit ñoo xamante ay rébellion maanaam ñoo xamante ni nii ñenn ñi ngi leen topp ci wàllu viol ñenn ñi ngi leen di topp ci wàllu caisse avance ñenn ñi leen topp ci affaire Ndiaga Diouf kenn ku ci libre koo xamante ni nii par exemple la ñuy xeex ñoom du affaire sax ay maanaam réew mu dox ñoom lañ bëgg mooy maanaam kenn bañ leen a teg loxo wala ñu nekk ci jàmm donc loolu mooy opposition Sénégal parce que opposition boo xamante ni nii donc doo xoolee doo gis am Ousmane Tanor Dieng muy wax doo gis am Moustapha Niasse muy wax doo gis ay ñoo xamante ni nii donc loolu loolu du opposition donc booy opposé da ngay opposé yi ci euh, xam-xam ba pare di opposé yu tam ci loo xamante ni nii dana nekk loo xam ne njëriñal réew mi lay doon mais opposition boo xamante nii sa njëriñal bopp ngay wax donc euh, loolu dafa dafa nekk loo xamante ni nii dafa nekk lu lu xaw a doy waar donc euh, loolu kon maanaam amul amul la benn njëriñ ñoom ci opposition bi ñooñu nga xam ne ñoom nga tudd ñoom bokk yàpp ne ñoom ñooy opposition mais Omar li xamal moo xam a jaaxal ci yow moom mooy que ni pourquoi chaque fois boo defee benn sortie bu tàng jër ah taak la ñi ngay taake mais man ragaluma lenn ci li may def boo ñibbi si waatee Dakar ci institution bu mag bi nga xam ne moom moo gën a mag ci réew mi nga nekk fa da ngay doxaat librement du dafa mel ni ne duñ la dafa doo joxe demande d'explication ci sortie yi ngay def boo dikkaatee pare <laughs> waaw mais xam nga man sortie yi may def dëgg la xam nga euh, président dafa nekk nit. koo xam yaa dafa nekk nit boo xamante ni nit la boo xam ni euh, sénégalais yi sax am na ci damaa jàpp ni ñoo xam xamuñ Macky Sall c'est-à-dire du far ci nit kuy tooñ du tooñ du topp tam nit kuy tooñ maanaam ku ñuy tooñ mu lay faral ca muy faral ànd yow di faral nit ñi ci tooñ gi man li may wax ci sorte yi may wax yëpp dëgg la donc li may wax ci Mahmoud Saleh fekkee moom ngay wax dëgg la moom la ñëpp wax li may wax ci Mor dama nii bu fekkee da ngaa ñëw di jàppale président Macky Sall nga ñëw ci département Mbacké lu toll ne ay élection Angloma nekk fa te consulté woo ko lu ñay yàq ca nga bokk parce que mbir moo xamante ni nit ki da caa bokk am influence tam ca ca yëf ya sëñ bi boo ñëwee ba Mbacké di segg ña ngay gis bañ koo gis ni jël sa xeexu bopp entre yow moom ni danga koy xeexee ci biir parti mais loolu da nga yàqal nga yàqal da nga yàqal président beneen bi mooy man euh, président Macky Sall sii di lama ma booleeg moom du ay ay ay ay palais ay ay bureau non non non man dama xam ni moo gën ci réew ma xeex bandi ko ci pouvoir bi yeneen élection yi su ma sa jaar ma xeex bandi ko ci pouvoir bi mais élection yi yu fi mujj jaar nii gars yi doxee baaxul dañ koy nax tey boo exemple bi ma lay jox li ma la wax noonu ci à Touba ak Mbacké li xew kay gis nga ko élection élection euh, euh, mairie euh, mairie dem nañ ñu gagné mairie bi ñëw nañ élection élection député ñu ñàkk élection yi boo demee Touba lañ fa investir ci xaalis def ko fa wax naa ko wax naa ko ci benn émission ku mel ni nu mu tëti euh, sëriñ boobu si Abdou Bali mënoo dem ñu ni yow am nga influence Touba nekk porte parole màggalu Touba nekk premier adjoint au maire de Touba daaru xuddoos ga nga dëkk nga xam mooy sa seefu mbaay di sa seefu maam dañ la faa gañ ban njëriñ mën a nga mën a amal Macky Sall ci politique te politique nag wax dëgg yàlla njëriñ li mooy électorat ak ak ak ak mbooloo moo xamante ni mën nga ko mën nga andil président bi dara donc man loolu laa wax donc li nga xamante ni itam mooy li nga xam te moo gën tem leer ma ni am na loo xam ne président mënu ko waxal boppam mais am na loo xam ñun mën nañ ko wax parce que moom nit la koo xam ni état lay lay lay lay mais man li may wax koo ko tegal danaan Anglô maa wax na dëgg. parce que tey damaa wax ni réew mi fi mu toll. ak ñun opposion bi nga xamante ni lañu jàkkaarloo nga xam ni euh, opposition la boo xamante te gàncax lañ c'est-à-dire il faut ñu am maanaam un directeur de cabinet équipe boo xamante nii par exemple dañuy nekk ay jeunes ba pare am xam-xam ba pare am rigueur li ñuy def tam ñu mën ko teg yoon mais boo jëlee mag mu max moom Mahmoud Saleh mu am juróom-ñaar fukk ak nangam léppam di complot nga jël ko dugal ko ci nit ñi duñ ko nangu loolu kenn du ko nangu Mahmoud Saleh say sorti yëpp yaa ngi tase man dañuy wax ma Mahmoud Saleh man Mahmoud Saleh dama ko xam nga nit koo xam ni wax dëgg yàlla wax naa dama ni man wax na man Mahmoud Saleh gis koo bañ koo gis intéressé wu parce que damaa wax ci benn émission man la Mahmoud Saleh boo doon wër fukki nit ñu tudd Mahmoud sant Saleh amul ci réew mi man bu may gisanteel damay gisantee ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye ku mel ni Matar Cissé ku mel xamante ni dañ bu njurutoon ndomb ak tànk tam fañ nekk ay ay ay noobal lañ fa mais koo xamante ni nii lépp ma yaraax yow tam nga ma man gisanteeg Mahmoud Saleh ñàkk gisanteeg man naa toog téeméer at bañ a gisante attaqué damay man li mu ah, attaqué c'est-à-dire xam nga man attaqué wu ma dama man li may wax dëgg la xam nga attaqué nit mooy nga bañ nit rek di tiire ci kaw mais man li may wax dëgg la li may wax ci parti bi am na ñu ko ñu ko ñu ko xam di ko am na ñu ko waxul ci ah, opposition bi am na ñu koy wax ñoo xamante nii mënoo di jàppale euh, président de la république nekk ci cabinet am ñi nga xamante ni ay icône lañ ci parti bi fañ nekk yaa gën a xam ni depuis bi parti bi nekkul dara ñoo fa représenté woon parti bi nga ni da ngay dem ba Mbàkke ak Touba di ko lijjanti bëgg a éliminer ñooñu mais loolu laa wax du ko nangu. beneen bi may wax foofu rek li lay wax nii euh, dama am benn émission bu ma def moo wax ci ni euh, le maire sortant euh, bi ma doon wax c'est-à-dire mi ngi mel ni la cas de Abdou Mbacke Ndaw Abdou Mbacke Ndaw ni ko ni mu Saleh def ak complot gi ñu complot ba éliminer ko. pour mu bañ a nekk candidat maire maire maire Benno Bokk Yaakaar loolu fan lañ ko teg am maire boo xamante ni nii jàppale na la élection présidentielle inversé nga ko ci liste name nga ko nu mu conseil spécial premier ministre nga toog ba ay des quatre jours collectif de liste nga ni nga nga génne benn candidat kooku taxaw nga pour defar déjà même bu demee opposition yaa pousse mu dem mu dem opposition loolu defar président dañuy yàq loolu la wax ci moom euh, l'honorable député Cheikh Abdou loolu xam nga nit ñi booy wax naa la toujours dañuy dañuy jaawale mi ngi mel ni ngay wax euh, Macky Sall ak ak ak Ousmane Masseck Ndiaye exemple maag Abdou comme noonu Abdou Mbacké ndaw suma rakk la di suma xarit mouvement bi nga xamante ni moom la gañee élection yi nga xamante ni moo la nekkee maire sama kër maam lañ ko lañ lañ lañ lañ tampé première première réunion boobu kon par exemple la ma booleeg moom booba booba ba may ba ñuy samp mouvement boobu noonu booba duggaguma sax APR APR booba Macky Sall sax nu mi ngi mi ngi biir ñu ànd defar ah, mouvement boobu di am ay activités yu ñuy mën a mbàkke di def ay bale di def ay social ñu dem ba mouvement boobu ci la ci laa dem ah, élection yoo xam demul man ma dem élection locale ànd ak ànd ma dem élection ànd ak président Macky bi mu ñëwee mu ber mouvement boppam dem gagné donc kon la ma booleeg Abdou Mbacke Ndaw du ay affaire APR ak i PDS sama rakk la di suma xarit donc la ñuy waxante man moom entre man ak moom la. lam nag euh, man nag la ma jàpp te xam ko mooy man APR la euh, couleur APR la la la la la laay incarné carte APR laa yor ba ni may waxee yow nii APR la te même bu APR doon bàyyi ñëpp doon bàyyi man Angloma APR lay doon. donc keneen koo xamante ni itam comme ki nga wax noonu ku mel ni Abdou Mbacke Ndaw wax niñ defoon ba jëm ko indi ci président ku mel ni docteur Fall Mbaye ku mel ni Abdou Karim Fall ñu mel noonu dañ leen jéem a def le tout bien vrai que ñu nga opposition am luñ fa mën ñu leen di ñooñu dañ jéem a fexe xëcc ci ñooñu andi leen nu ci ci ci ci ci ci ci APR pour ñu pour ñu dooleel parti Mbacke ak yeneen cadre yi nga xamante ni ñi nga fa ah, ah. xam nga tey boo xoolee euh, toujours dañuy tudd euh, may xaw a fàtte euh, les jeunes sama jeune frère Baara Gaye ngay góorgóorlu lu lu mu mën ma koy def te boo xoolee président gagné jaral na ko lu ne mais problème bi mooy euh, ni ñuy demee moo baaxul xam nga euh, politique compétition football sax du pëccaxoo waxuma la ak politique politique lu sérieux la mais tey jii li ma waxoon ci émission bee passé nga jël euh, benn candidat mu gagné maire sortable ba lu mel presque huit mille waa ñu ñëwaat nga jël ña nekkoon tris listes ya sept yëpp ñëw région de sax ginnaaw sëñ bi nga dem élection député nga am président da koo soxla nga perte ko donc kon yéen a ngi joué président jeu boo xamante ni du jeu bu honnête c'est-à-dire nit boo koy politique la mu jël poste responsabilité jox la ko yaa koy téyel base politique bi yaa koy téyel yenn stratégie yaa koy jàppale ci lépp am na foo xamante ni loxo mën na faa bañ a àgg ci engouement sax yow mi yor yi mooy yaa yaa war a fexe ba sa loxo di fa àgg muy nawetaan ya muy làmb ja muy lépp yow ma fa yor poste responsabilité yaay fexe ba ñooñu seen bët du xonq ci dara lépp loo xamante war nga koo jàppale euh, président Macky Sall ci état yow yaa war a jël sa alal ak sa doole parce que poste bi ñu la jox pour loolu la. Ndaw mais Abdou Mbacke Ndaw kay xanaa man dama koy santi di ko gërëm Abdou Mbacke Ndaw kay xanaa man la doon jàppale parce que Abdou dragué nañ ko ba mu ñëw ba mu ñëwoon Benno Bokk Yaakaar nu mu tuddati ba ñu nommé fi conseil spécial nommé ko mu ne mu jiite fi ay euh, euh, gaar ba Abdou kay bu ma koy dragué xanaa man maa koy dragué pour mu ñëw mu ñëw mu ñëw mu ñëw jàppale président mais man Abdou fan la ma dragué mën a dragué yóbbu mu fa. d'accord euh, président génn na def benn sortie bu yàggul dara ne dootul maanaam nommé ku dul muuye euh, maillot bi maanaam dootoo wàcc di base ba war ba mu jaral ngay perte ay élections. loolu looy confirmer la. est-ce sax war naa àgg gaay ci loolu xam nga dafay am loo xamante ni asgor moo ko war a xamal boppam man am na loo xam bu fekkente ni nii da nga ma ko jox muy poste responsabilité lu mel ni yenn direction yi mag yooyu wala ministre franchement te la nga xamante ni mooy politique njariñ la mënuma la koo amal mënuma laa gañeel waaye bala nga maay dàq sax ma jox la la nga ma joxoon ma jox ko keneen c'est-à-dire président sax moo wër te àgg gaay yi ci foofu gaay yi mënul ñoo war a ñëw ni ko président ñun danañ la jàppale politiquement loo nekk ñu ngi ci waaye yëf yi jox ko ñeneen ñu xoolaat ba xam mais xam nga gàcce mënta weesu nu mu tuddati tey Aly Ngouille Ndiaye nekkutul nekkutul ministre nekkul dara mais gañ na dëkkam Omar Youm gañ na dëkkam mais yow ay ñoo xam dañoo yor ay poste responsabilité mënoo gañ sa dëkk mais sëriñ bi te politique dem gañ lañ soxla parce que euh, ki lay jox ndombak tànk bi bu gañul mënatu la koo jox ndax dafay jóge sëñ bi da nga war a jël jëfam delloo ko de de de de delloo delloo ko ko. donc président sax warta ak ñoom ci ay ku muuweewul mayoom parce que bu leen doon tabbu téeméer yoon mënuñoo muuwee mayo parce que ña ngay tabbu fa nga leen tabbu est naa ko euh, boo jëlee si Abdou Bali name ko nu mu tëddee conseil ministre conseiller élection yi mos a dem dañ koo ko jël ko yóbbu ko liste nationale sëriñ bi bu nekkee député assemblée nationale tam ban njëriñ la lay amal. député boo xam yow même yow nga koo nekk mais même chef fa nga dëkk yëpp dañ la faa sëriñ bi loolu loolu du yëf yu yiw te yooyu gars yi dañ ko war dañ ko war a dañ war a bàyyi. d' accord euh, ci sunu maanaam question yi nga xam ne moom la ñu daal moom mooy remaniement ministériel euh, tudd nañ ko léegi te ñi tabb gouvernement bu bees ci moins de euh, douze mois wala dix huit mois ci mandat président bu mujj Mbàkke war naa cëru ci poste ministériel wala boog dafa am ay compétences yu mu laaj ba ko am. nooy xeexee ba loolu am ci. xam nga Mbacke boo xoolee premier ministre première euh, ministère euh, ministre affaires étrangères Mbacke la njëkk a dëkk muy Doudou Thiam ministre de hydraulique Samba la Diop la doonoon suñu baay euh, Moussa Sakho nekk na fa ministre Iba Guèye nekk na fa ministre SONES et sport nekk na fa lu ne mais ñooñu nga wax ñëpp dañ daan gagné gis nga politique nekkul nii nag dañ lay jox ndomb ak tànk te mënoo gagné c'est-à-dire tey nag man bu ma sañoon Mbacke lay poste yu baax ca ministre yëpp ñu dëkk département de Mbacke mais. Euh, lay tax nag sëñ bi ñu namee la ministre nag wala ñoom yow nag loolu nag yow yaa koy xeexal sa bopp nag parce que da i bëggee ñu mu woo defal ab gouvernement te defoo ko fa ministre parce que waxuma ni nii yow dama lay ni ministre boo xamante ni nii wax dëgg yàlla quartier ba nga dëkk sax mënoo koo gañee sëriñ bi buñ ma ko joxee sax du ko jël donc ci ñi nga xamante ni itam <laughs> moom la ñuy yaakaar léeg-léeg nga dégg ko wax sax ni waaw xam nga Mbàkke kenn na fa nekk muy Gallo est-ce que duñ ko ministre ah, bu fekkente ni nii nu mu tuddati dañ ko war a nommer ministre pour euh, euh, euh, jox ko gâteau wala ñu neexalee ko ah nañ ko nommer ministre <laughs> bu fekkee loolu waa bakki bëgg mais bu dee compétence tamit la ko mën xam nga compétence compétence ci xam nga dafa am <laughs> compétence yoo xam da ngay wax compétence lépp yéen élection élection donc la damaa wax sii di gis nga gis nga compétence dafay am ñoo xamante ni ay ten technocrate la ñuy doon politique wuñ sax mais dañ leen di nommé amuñ sax base politique mais xam nga Gallo moo apte doon politicien sëriñ bi dem créer mouvement am wut base politique bi day politique tey bu toogoon DRA santé mën nañ koo capter ci xam-xamam ni kii am na xam-xam name ko parce que bañ koy namee DRA santé boobu politiqueul donc mais moom moo apte nekk politicien moo apte bëgg remplacer i bëggay moo apte bëgg remplacer Samba Yàlla moo apte bëgg remplacer tonnerre yu mag yooyu mais apte googu nag dangay def lu gaa yooyu daan def da ngay gañee da ngay gañee bu ko bu ko séntu ah mais de déet dama ni bu fekkente ni nii moo gën ci moom ak Mbàkke yàlla ku ko yàlla defal <laughs> waaye nag bu fekkee politique la ak électoral rek wax dëgg yàlla. léegi à ah, part xel du dal ci moom. yow sa xam wala xalaat boo xam ne xalaat nga ne doomu bu war a mérito poste ministériel war na mën a génn Mbàkke ndax am nañ ko ñun par rapport su parce que suñuy cadre dañoo nëbbatu feeñu kenn ñu gisul leen nan mën a mën a xamee ni ñi am nañ compétence gérer ministère. xam nga loolu xam nga département de Mbàkke Sénégal maanaam ñi fi dàq jàng département de Mbàkke lañ dëkk. waaw déglu maax la rek xam nga tey boo xoolee ku mel ni professeur Amar Kata Faye agrégé la mën naa laa citer ay docteur docteur Ablaye Ndiaye ñi jàng ci politique sax la man dama département Mbacké ñi ëppum njàng ci Sénégal dégg tubaab am xam-xam Mbacké lañ dëkk département Mbacké lañ dëkk am nañ nag ñoom politique uñ politique intéressé wu leen mais ci kaw côté politique bi tey boo demoon tey euh, Ablaye Niane le jeune là mën naa bañ a ba am base politique sax mais fekkee ci compétence xam-xam nga koy teg nu mu tëdd am na xam-xam boo demee tam euh, dem jël euh, doctor Fall mbay am na xam-xam boo demee jël euh, Abdou Karim Fall am na xam-xam même boo demee jël la maire de Mbacké am na xam-xam xam nga nit ñi dañuy jaawale xam-xam ay man énaam laa génnee damaa jàng déedéet Lula moo defar Brésil tem njàngam soriwul Lula mooy meilleur président Brésil tem njàngam soriwul ab syndicaliste la woon dragué wu nu mu tuddati génn ci syndicaliste dem ba nekk tey dem jiite Brésil te mooy meilleur de en Brésil yëf yi bu ñu ko teg ci am am am am am am am am am njàng rek Abdou Mbacké Ndao bi muy bi muy bi muy gagné kay ay ay gars yu génne enaam la gagné gagné i bëggee ñëpp donc kon yëf yi du ci njàng ki c'est-à-dire euh, politique dafa am euh, euh, challenge management management bi mooy mën a gagné i bëggee daraan dara i bëggee nit la koo xamante ni politicien la bo xamante ni kenn mais Iba daawul tubaab sax daawu ko fooye comme làkk tubaab yi sax nu mu tuuti parce que yooyu intéressé wul nit ñi ay làkk tubaab ak xëcc ay costume ak ay defaree ay o yooyu intéressé wul c'est-à-dire mauvais pour mën a gagner lañ wax ñun. waaw président fi may wax mooy euh, rek man di ko gën a jaajëfal di wane ni sénégalais yi nañu bàyyi xel ci moom. que président la boo xamante ni nii li mu def ci réew mi boo indi woon euh, ju euh, fukki at ñaar yi fi def boo indi woon président daal depuis beneen kan quarante ans mënu ko fee mënu ko fi def gars yi itam ñu ngi topp rek naan troisième manda troisième manda même élection yi passé euh, yu député yëpp élec troisième mandat lañ ko campagne war ta nekk candidat war ta nekk candidat waaw mais comme constitution bi dafa am fu mu tënku réew mi bu ko mënee jox wala del candidature waaw ñoom nañ nangu ni nu mu ti lii ñoo ko woote woon ci constitution bi c'est-à-dire Macky day dem élection c'est-à-dire président Macky Sall ñun même bu doon dem les sénégalais sérieux ak ñu baax ñu ñun bëgguñ Macky Sall dem. parce que nu mu tëddi dañu bëgg mut amaat beneen mandat pour continuer nu mu tëddi euh, travaux liggéey même nag moom xelam ak boppam bu ci fekkee dem moo ca ne ñun d'accorduñ ñun pour président dem. te loolu luñ ci mën a xeex ak lu ci mën a combat dañ ko ci def ba mu ba mu ba ba ba ba mu resté ñoo la gën a xam ni Macky Sall mën war na war na war na am war na war na war na mën a war na mën a posé wu candidat ñoo la ko gën a xam. kon buñ ci dee topp di wax naan candidat bu te nekk candidat waaw ñoom sax nee nañ ñun amuñ majorité kay <laughs> gaynde gi nelaw kay bu ko kenn yee comme amuñ majorité kay nañ ñu bàyyi ñoom élection présidentielle. merci beaucoup merci beaucoup merci euh, Oumar Ndiaye Angloma kàddu rek xanaa ci waxtaan bi nga xam ne seqoon nañ ko tey fii waaw euh, Sidi am am tam gën a ko am tam euh, beneen euh, kii mbégte ak contentement bu mag rek xam nga ci yëf yi fii ni ma fi dalale donc di wax ni rek nañu yéeneente jàmm man li ma doon yàlla moo ma ko def li keneen doon yàlla ko def donc li ma doon yàlla moo ko mën a dindi te bu ko dindi woon damay jox damay jox leneen donc dégg naa sax dana am ñu toog ci grand place foofu Mbàkke ñu ni sa waay nekkatul fële nekkatul ca pale ba écarté dañ ko nangam nangam mais loolu lépp euh, ay yéene doomu aadama rek waaye man wax dëgg yàlla euh, ku xam samay maam xam fi fi ma jaar xam ni maanaam lii moom nu mu ti cosaan la ci ñun donc li am solo rek mooy euh, man yéene naa ñëpp jàmm kon na may ña ñëpp yéene jàmm di am mbégte contentement bu mag nga ànd ak nag sama rakk joo xam du ma tudd sax turum waaye nit la koo xamante ni nii am na lu mu defal mbàkke am na lu baayam defal mbàkke yooyu dafa solo tey bu fekkoonte ni nii nit laa koo xamante ni nii am na nu ma mel boo jógee di ñëw du ànd ak yow ñëw ci du ànd du ànd ak yow di ñëw ci man donc maa ngi am mbégte contentement bu mag Euh, jërëjëf mbokk yi ñu doon seetaan mu nekkoon seen entretien exclusif boo xam ne ñëw nañ ba fii ci Dakar ci pale présidence de la République ci cabinet président fekk fii chargé de mission Omar Ndiaye Angloma euh, li naan dañu ko écarté nag doox euh, dëgg yàlla. Euh, dugg nañ ci pale bi dugg nañ ci bureau yu bëri am na ay secrétaire yu bëri yoo xam ne recevoir nañu seen bureau waaye nag présidence du maanaam n'importe am il faut nga am autorisation pour jël ay image euh, kon nekkoon dana leen ko dë euh, dëgtal mbokk yi mu nekkoon seen site 28 pro déplacé wu ñëw ba fii ci dakaar uniquement pour seet si toogaayu Omar Ndiaye Angloma Loma fii ci pale président de la République dig dajee ci yeneen jotaay jërë ngeen jëf. <laughs>